mbokk yi ñi seetaan fi ci as TV ñi ngi leen di balu xaq di leen baal di ñaan subhanahu wa taala mu mën a baale mu boole ñu baal waaye it di ñëwaat ak yéen fii ci seen émission màggal gi indi leen benn point bu am solo lool mu jëm ci as murid sadiq borom tuba qaada lahu llahu almaxtaara lahu di wax ci xikmatu cheikh alxadim di wax ni fa inna